liggéey bi di wo ki wax soxna ummi Mbàkke ak ibrahim Ndiaye mu ne par par kenn lañ ko bëggoon de waaye dafa guddii moo tax ta asamaan si neexul daa ne Mohamed Ndiaye Mohamed بسم الله الرحمن Bravo! macha kon ñu wéyal di woo ki wax Ndey Màggat ak Adja Diop ganga kuidin balinyaking samna sosu mola kutub silislam si sijigen karitan bunya karitan bunyan Abu Bakari Sidi Wassalam Badewi ñu aja Adja Mama Sey ak Ndey nday jaxat nday jaxate ak moomi jaane ak njuufa njuufa wax na moom ci tontu bu leer bi ñoo ko ba déwén ñu woo Mbay Jaañ ak soxna Ndey Jaañ Xaadim Waaj ak Meen Njaay Fat Njaay fan njaay nday waaj fan njaay siise ak nday waaj ak mama kumba ndey ami ak ami Rama Diané ak Njaxat Njaxat ak Rama Diané kàddu bàjjenu ci kàddu ndeyu daara yi maa ngi wax ci kàddu parents d'élèves yi tamit ñun sa gannaaw bu ñu sant yàlla sant sëñ Aboo Mbàkke borom Daaru Salaam ba noppi ñuy sant suñu ñaari waajur di sant suñu borom kër di sant Bajib Sarr mi nga xam ne mooy borom kër mooy borom soxna May Jóob moom la njëkkee cant bi ci moom ndax nekk ci xale dafa jafe lool ak yaa nday ja nekk ak xale metti na soxna May Diop nekk xale yi nag ci biir kër gi ñu sant borom kër gi ci biir kër gi la ko defal surtout nag man mi nga xam ne maay baa jëmu gox bi daanaka mën naa ne man la ko defal ndax jamono ji metti na mettiwaay boo xam ne suñ toll képp ku la tëyal sa doom nga xam ne 1000 francs yi ñu koy jox du dara ci li nga xamante ni moom la ñuy defal ci suñu njaboot bi ndax euh, dëkk bi métti na agression yi métti na xale yi ñuy sàcc métti na kon nag moom bu ko léppam téye ko xale yi ci biir këram gii ku ci soxla lekk mu jox la ko ku ci soxla naan mu jox la ku ci soxla leneen te xam ngeen xale ak ay service am ni mu baree lépp mu engagé wu téye ko yow nga jox ko sa doom dem marché di liggéeyi wala nga jox ko sa doom dem sa lal tëdd di nelaw kon soxna May ñu ngi lay jaajëfal ci cadre parents d'élèves yi te di la coono bi ngay sonn ci xale yi yàlla la ko yàlla fay amuñu sa fay nag kon nag yéen parents d'élèves bi maa ngi leen di gën a ñaaxaat ci ñu góorgóorlu ci lii soxna may di laaj te duñ ko mënee yokk bu yokk ko ndax ñaar téeméer xam nañ ne dara ñaar téeméer du dara kenn ku ci jël sa doom yóbbu ko ci dee d'enfants yi yaa ngi ciy fay ay ñetti junni ñeenti junni kon ñaar ñaar téeméer yi ñu ciy joxe te am ñoo xam ne sax far duñ ko joxe kon nañ ko yokk te fas yéene saxal ko ndax alxuraan jii ñu tari fii kat kenn ku ci ne mu dugal ko sa dënn nit ñi di seen ndey xamuñu ko kon nag ka la xamal lool wëlbati ko téyal la sa doom amuñu fayam kon soxna May ñu ngi lay ñaanal ci barkat alxuraan lépp li ngay wut ci sa bis bi yàlla na la ko yàlla may lépp li ngay sonn ci xale yi tamit yàlla na la ko yàlla fay ñaareel ba it ñu gën a góorgóorlu ci xale yi yéen parents d'élèves yi góorgóorlu leen ci xale yi élection yaa ngi waaj a ñëw donte politicien laa téye leen xale yi ci biir kër gi ndax soxna may kat dana tëj daara ji ñu jege weer noppalu doo koo ubbiwaat kon nag diggante boobu danañ xam lu soxna may doon jariñ nañ téye xale yi ci biir kër yi di leen surveiller te bàyyi nelaw yi ak téléphone yi ñuy yor ba faat sàggana xale yi nañ téye xale yi ndax lu nekk mën naa xew ku nekk mën na fee jaar oto bu ne mën naa jaar te bu doon soxna may daara ji tëju sax sam xel gën a dal waaye comme daara ji day tëj nañ nañ fortu ci xale yi te téye xale yi te bu daara ji tijjee ñi duggoon nañ duggaat ñi duggutoon nit nañ fas yéenee dugg te yokk suñ loxo bu baax a baax wasalaam jërëjëf wassalam bedewin wassalam Assalamualaikum Mm. baax ak sutura di ziyaare bàjjen may mi jox suñu doom yi muy def ci ñoom xam-xam te kenn ku ne xam na ne jël xale di def ci moom xam-xam lu metti la te ñun ñi parents d'élèves yi dañoo war a xam ne alxames yeeg àjjuma ji kenn ku ne danga naan siiwe ne yàlla na samedi jot ba sama doom jàngi doom ji nga jur nag sonal gi mu la sonal ak fatt gi mu la fatt ba tax nga koy jox ki koy jàngal kon ku koy jàngal war koo sant gërëm ko te xam ne yow doom ji nga jur lim lay wan mënoo koo supporter sàkkantement ab jàmbur te 1000 francs bëriwul te amaana weer dee xam nga rek mooy loolu ñi mel ni faama daa bëri te bu ko bàjjen may dee wax di ko waxaat di ne ah bàjjen may dee mooy loolu daal waaye war nañ di góor góorgóorlu di jàppale bàjjen may daal ndax moo ñu yoral suñu doom yi te mi ngi ciy supporter loo xam ne leer ko ne ko kenn mënu koo supporter sa doom yow mu ko jur. man mii fi ñëwoon nag di jël seet di jël mesure di leen ñawal xaaj bi maa ko ñaw indiwaat ñaw yi démb am na lu ma ci gis ndax bàjjen may wax na ba sonn mujj gi ma ne ko man de lii xam ma ne woon li mooy moom nga def ci école bi kon nag nañ delloo góorgóorlu te jàppale bàjjen may ndax kat olof Njaay nee na diggante simmeeku ak solo yaramu neen xaj na kat kon nañ góorgóorlu daggiwaat xale yi jàppale bàjjen may ñu ngi koy sant di ko gërëm yal na barkeb al yal na barkeb alxuraan wàcc ci moom nag lépp lu mu ci njaboot gi ba di ko def ci ñoom yal na alxuraan wàcc ci moom nag moo leen jullit ak ak loolu kàddu yi dafa am solo da wax dafa nekk nañ na solo ngi ci sëñ bi daawul bi a wax soxla wax waaye war a wax ay tax a wax xëy na jotaay bi ñu ngi demee na ñu na li dogal alxuraan moom nekk suñu loxo mbooloo mi nga xam ne ñu bare bare bare ñu gis a bëri ndax ñu daan ko ci koñ ba léegi day gën a ko ñëw daanaka affaire bi fi ñëw ñu si yàgg daa delluwaat waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax lala ñu ñëw ci ay kàddu nag dama ñu nga xam ne jotaay bii jomb ci kër gi waaw jotaay bii jomb ci kër gi ndax yàlla dafa dogal kër gi di tënk alxuraan ndax li gën a mat a sant yàlla mooy mbooleem ñi ñu fi di seen i borom kër ñun ñëpp kenn ku nekk yàlla dégg yàlla dogal na mokkal alxuraan yàlla dogal na ñii bu nekk dafa sëy ak borom këram mën nañu jàng ab kaamil sa kenn dina rax maanaam boo duggee ci kër gi tey ñii ba nga a a dugg mën ngaa a kaamil xoolal ak borom këram jàng ko xam ko te kenn dina rax loolu ak kon jotaay bii jëmmuñu waaye nag tey fii ñu soxla nag toogoon fii suñu njëkk a sant mooy suñu wayju wayju bu saa ndax li ciy nja li ndax bi soxla may bu mujj kër gi donte ñu mooy suñu wayju moom mooy suñu ba mu tuddee daa yaakaar man gan laa ndax ñun genn kàddu moo samp kër gi ba nga sampee ba léegi bu sama baay waxee kenn du wax bu sama yaay may dégg kenn du wax kàddu genn genn la li fiy sëy si donte bi ma koy jëlit fekk naa mu jëm ci alxuraan waaw bi mu ci kër gi moo nañ ko ko gàntu te kenn du ko yëg te te benn daal ndax jàng alxuraan du farata bu ko ñeen ñi defee ñenn ñi mën nañ ko def waaye nag comme kër gi de kër alxuraan dama yàlla dama jàng alxuraan ba mokkal ko ba waa yoon bay samp daara ñett fan moo tee ma samp daara far yàlla dogal ko ndax ndigal kon nag bu sama soxna ñëwee di yëngu ca loolu day mel ni comme sama yéene moom la ñëw di ko di ko di ko te li gën a doy waar mooy bu fekkoon ne yàlla koo xiir ci beneen wàll fekkoon yàlla koo xiir ci am tëgg wala am musique te ma kon ko supporté xanaa kay damay fu ma jaaree sëgg sama sëgg sama doom jàll waaye nag loo xam man ca laa judd ca laa naaf ma bi ma koy tax ba mu amee juróom-ñaar at laa dem daara bi ma ko daara bi ngay ma waykë mënan mooy suñu cër kon bu kenn amee lu ñuy ñaanal mooy nañu yàlla saxal ci alxuraan ba faw ba suñu njaboot ak njaboot ñëpp ñu sax ci alxuraan kon ñu ngi sant suñu waajur baax bàjj bu saar bu ko ñaanal baax ñu ñaanal ko suñu borom gën a guddal aw fanam ndax li yëpp moom bi sa xatal kenn rawat na nga nekk di ci mën a am sa njariñ bopp bu ma sa xatal kenn man du ma xatal kenn ci leen te noonu la ko defee noonu la ko waxee yaa ngi moom mel ni xaram xar am xar moom far a leen ñëpp moom li neex gone yi neex na ko neex neex na ko te ñëpp nañu koo seer waaw ñëpp nañu koo seer lu ñu neex neex gone yi neex na ko ñoom soxna Mbaye ñii luñ ko luñ ko wax neex na ko lu ñu wax neex na ko man day ñu mooy seen morom loolu lépp ak cant la kon ñu ngi leen ñaanal baax suñu ñaari wajur suñu borom yàgg leen ci lool te wér ba ñu yéen si jabar bi suñu borom defal leen ko ginnaaw loolu jaare tamit ñu ngi sant bu baax soxna Rama Cissé ñi nga xam ne suñu bàjjan suñu yaay ndax ba ba muy commencé jëriñ suñu suñu suñu soxna ñun booba bii door ak soxna soxna si doom ji soxna njëkk am ci laa digg ak taxawaayam kon moom lii muy def bàjjenu gox la waaye bàjjenu gox boobu mat bu mat lim doon la kon suñu suñ suñu ndam la ndax ñu ñetti àll bi ñu taxaw suñuy doom ñu taxaw suñuy suñuy suñuy kii loolu am nañu ak cant kon su ko soxna tuddee bis bi tuddee ko ko ko moom ko fa yeyoo te yàgg def famille te yàgg a def kër bi kon ñu ko sant baax di ko gërëm di baax lépp lu muy ndax taxawaay rafet na lool taxawaay boo xam ne bii taxawaay bu jafe-jafe jafe-jafe te moo koy yaakaar yi yi a seer ndax taxawaay boo xam ne ful la du ko amutoon du ko a taxawaay xam nga li may wax baax baax bi ñu doy na borom xel il faut que tamit ñu sant mbooloo mi fi teew yëpp waaw ndax teewaay bi rafet na lool kenn ku nekk bàyyi nga sa yitte ñëw teew def ko sa mbir mi suñu mbiram bopp waaye nag lu waaye mën a am ku ne sant soxna soxna may mu ñu sa ñaax ba ñu sant ndax bëgg na lu baax loolu jàmbaar la ñii mu jàmbaaree fii yàlla xam li mu def li mu jàmbaar kër gi moo xaram boo fekkoon ci aw waañam danga naan kii maan maanaam lii de moom la man yàlla xam na ko liggéey moom ku ko gën a man a mën a yëngu ci kër dañ koo mën a jàmbaar bi suñu xam wama sayit na ilaa maxalen naa du ma wax leen lu ma jëm ndax su ma waxee loo xam ne dama ko wax ëllëg mbooloo mi tax ma wax lu ma gëm du ma ko wax loo xam ne jëfu ko waaye ñii mu doone jàmbaar ci xale yi la doone jàmbaar ci këram bu dee samay bokk nag ak samay xarit ak samay am jàmm yow soxna ma ñu ñu bëggee ak ñu fi ñu teg man daanaka sax man daanaka kër gi ma ne duma wax ndax koo xam ne bëgg na la bëgg say waajur bëgg sa euh, say say rakk ak say bokk foofu looy waxati man nee naa ko su ma su même man man sama jaan wàcc na ndax amul lu ay waajur te foog samay waajur def na teg leen teg leen ca kaw da nga leen toppatoo da nga leen yërëm da nga leen jéggal te loolu doy na sëkk góor fi loolu ngay bëgg man su ànd nag man damay bañ bu am na man bàyyi seen waajur damay bañ te lii mu def nii li ko taaral mooy ànd ak say waajur ànd ak sa borom kër kon ñi koy sant di ko gërëm baax di ko ñaanal baax a baax a baax ba lii mu yéene ya jamono ji ne yàlla na ci suñu borom gën koo taxaw gën koo sàmm ba fu mu yéene rek suñu borom defal ko ko njaboot yi nga xam ne yàlla dégg nañu tamit maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na suñu borom dénk alxuraan te dénk leen diine ak islam ndax adduna bi ñu toll kat lu waaye mën a def lu nekk yi mu ci lu baax am na solo ndax fii dañ fii jaar fii ab jaar fu ñuy jaar jàll na ku fa jaar ku ne fexe def lu baax bu ko sant dam il faut que ñu sant ki mu ànd liggéey bi ñu soxna Fassar doonte yàgg bi waaye taxawaayam defal na lool soo leen fekkee ñoom ñaar da ngay yaakaar doon yaa doom kon ngeen koy ñaanal baax ànd bi mu ànd ak moom fas yéene taxaw daara ji ñu dem a dem ba daara ji lépp lu ngeen ci yéene suñu borom def leen ci kawe ci njort nag ànd defal na lool ak ànd nag moom moom la seetaan ay bañ seetaan fi mu gën a sawar mooy ànd bu rafet ànd bu yàqu moom waxu ci waxu ci dara waaye ànd bu rafet la seetaan gën a sawar kon nag ànd bii te ànd bu islam dong ànd boo xam ne ànd bu nawle la kenn def sa morom def bu seet bu rafet boo xam te bi kenn nekk jàpp sa morom dara sa xol ànd boobu yàlla na yàgg na yàgg yàlla na yàgg waaw ak soxna maam jaara ndax ñun ñëpp yaa indi alxuraan la ñun kër gi dañuy sant yàlla kër goo xam ne seen borom sa mën na alxuraan seen soxna ñu mën alxuraan loolu yombul boo demoon dawatu la bi di ko wër mën ngaa rafet kër sëriñ doo ko am kon nag ak xam naa wax na yomb ma waaye nag li ma wax rek nag mën a wax tux maa wax tax war a wax moo ma tax wax ñoo sant baax moo la fi téye yëpp di sant si Moussa Gueye ñi bu baax a baax a ku bëggul baax la ku yàgg xam la ku yàgg ku yàgg sama sama man fii maa la jàng alxuraan mu doon bëgg lu baax lool sant Baye Sall Diam suñu doom nijaay moom taxawaay rafet na lool di wax de comme ñu ko soxna Ram si wax rek maanaam soxna ma ñii soxna ma ñii ne ci kër gi di jàngale fekkoon da ngeen initié yi doom mu ne bi may garder rek loolu di jot na ak fay fekkoon ne jënd leen benn da benn baax alxuraan di leen garder di leen jàng rek loolu doy na ak fay kon nag li ñuy sonn ci xale yi yàlla na ko suñu borom fay adduna ak alaxira soxna ma yàlla suñu borom jàmm soxna ku ko xaar ku ko xaar yàlla nga xaar soxna ma yàlla nga am jàmm yàlla na am jàmm yàlla na am jàmm ku xaar yàlla na xaar soxna ma li mu bëgg ci kër li mu bëgg ci ab sëy yàlla na suñu ma def ba def la koy joxal sant nañ ko bu baax ñu koy ñaanal baax baax alxuraan karim yàlla na ko yàlla taxaw saay ak baatin taxaw mbooleem ñi fi ci kër gi taxaw waa ji taxaw mbooleem ñi nga xam ne seen doom la fiy jàngee ndax ki la jox doomam am na ci yow yaakaar ndax boo yoroon weneen melakaan kooku du la jox doomam kon ki la jox doomam dalaa sax ndax dafa am bu gis yow bëgg rek ko ci doomam kon nag na ngeen xam ne maanaam daal sant nañ ñëpp mbooloo mi ndax wax lu bari bari mënut a mënut a passé li ñuy wax rek dañuy wax di waxaale kon ñi ngi sant mbooloo ñëpp di sant mbooloo gërëm lépp loo xam ne dañ koo fàttee wax jàmm moo mësul waaw lépp loo xam ne dañ waaye soxna ñu mën a mel ñu la war a mën a mel ndax waajuram da ko liggéey waaw ah, sama yaay sama baay yàgg naa wax ne soxna may de waajuram yaa sagar lu ne ci àdduna muñ na ko kon ne bu dooma mel leen wusa bett kenn ku bëgg lu baax ku bëgg lu baax da ngay def lu baax alxuraan dafa wax ne wal ba taybu wal ba taybu yox defatoo da ngay wut da ngay wut jiwu rafet wut da ngay am képp koo xam ne wutoo jiwu rafet wutoo gàncax bu rafet def ko ci tool tool yu baax doo doo góob góob mu baax kon nag yoon waa ngoogu da ngay def lu baax sax ca di jaamu yàlla sax ca ngir mën a am baax ëllëg kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di mastaw ñëpp waaw di di sant ñëpp di gërëm santaat baax xam nga dama si ñu tuddee ndax yayoo na gis baax a baax a baax taxawaay dafa ne lool bu booleen yàlla jox it wala meer jox bi mel ni yow kon ñëpp daan am jàmm ndax faale nga sawaa koñ jëngalee tey boo nga tooy mën ngaa àndal ñëpp ndax loolu ñun xam nañ ko jig ko kon ñu ngi ñaanal ñëpp mbooloo mi loo xam ne dëng na

loolu aw sas la da nga gën a góorgóorlu ndax waaw kon yàlla yàlla fay muy sant Sow Fassar bu baax ndax moom. waaw mu ne xale yi ñëpp maanaam bu samdee nañ ñëw dañuy jàng xale yi kon mu mel ne Serigne Saliou Sall mii Serigne Saliou Dia moo am ak ñaan muy ñaan muy ñii moom mooy doon micro bi. di doomi maam jasaar waaw kon nañ ko teewlu soxna ko ne moom dangay yàgg waxee kër moom boo xoolee ci bàyyi tuub xam ne cosaan la tey lu baax doomu moo leen ñëw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 شئنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل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 الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم bi su leen bëggee abonné ci seen bu mag bii di Ngaabu Média loolu yomb na dem leen YouTube nga bind Ngaabu Média ngir nag nga abonné loolu yomb na bësal kolos bi lépp yem mooy tax bépp actualité bu soxal yoonu murit nga mën si jot ci lu gaaw Ngaabu Média taxaw temm ci liggéeyal Seexul Xadiim bu Média seen bi ñu jege